toogaay baaxut ndaw dañ koy tàggat ba moom aw yaramam waaye ndaw luy dox def nii ah koñor koñor wala boor loxo ya wala teel a yoru kurus mbaa teel a kaalawu waaye ko suñu ab laata ah, rek def nii di nuyoo ko ba noppi ne ko takk nga soxna xale ba ne ko déedéet mu ne ko ngay kaalaw <laughs> ah. léegi nu may def mu ne ko ku tëkkagul soxna day laxasaayu jëlal kaala gi def ci ndigg li boo tekkee jaba soxna ba am juróom benn weer te fase woo ko kaalawul jot na <laughs> wax na dëgg de tànk soxna am ak moom juróom benn weer dara xewul jàmbaar nga di pourquoi juróom benn weer ah mbàkki jigéen eh, sëhrul asal bu jeexee mm, ceetu gi bu ruusee. weer wu njëkk moom xam nga séet kenn du ko mere. musuma koo gis. benn yoon boog laa ko mos a dégg. tekk séet bi séet bi agsi ñu koy ganale mu xool njëkk ñu ko dëgg la nopp yi. nekk day kaf. jëkkër jaar koy fase ndeysaan àgguñ ci néeg bi xamul mu ñëw gaaru ceer daan ne bàjj daan ne bàjjenam ba jët bàjjen di ko indi woon néeg ma wàccati nañ ma waaw góor jigéen ñu ñaaw day naqari baat ngeen baal ma yéen ñu ñaaw ko bàjjen néeg ma wàccati nañ ma wàccati nañ ma si daal yàgg nañ koy wàcc moo loo defati mais dama ne ko dëgg laa nopp yi ana siiti ko wax noppi jaama. mën naa leneen. mën naa waxtaane leneen. kon ndaw buñ ñu yar yaramam ba mu am physique. aha ñu wax ko nag physique boobu fu mu koy def bu dee ci tubaab daf lay defar ba nga am physique mun ne seetil jigéen ñi ah lislaam da lay def lu physique ba nga am physique mu ne jaayal physique bépp sa borom tabaaraka wa ne physique bi jeex ci luy gëm luy bëggloo yàlla ah foofu nga koy jeexal fa kullu man baadara waxta sixari ilal huda staraa waxtal kibari ku teel a jóg boo màggee noppalu boo ko yara al jismi ba yaram mi baax nga yar nag jaanibu ru nafsi moom tam nga yar ko yar nga roo yaral nafs nafs mooy ki nga xam ne bu nit ñuy def lu baax mu ne mënoo lépp bu ñuy def lu bon mënoo defal lépp ku koy nafs al ambaara bi su bu def lu baax mu ne mënoo defar ñëpp bu ñuy def safaan mu ne defal lépp tey da ngay seen jàngkat yi nekk grand théâtre danañ danañ wax yonent bi daañ wax bilaal ñoom lu la nañ ko wax waykat ba mu ñëw fe rek ne ay rek ñu commencé ko baatare yow lu mu wax a bopp aay kat la wax mooy waykat yi di wax aay aay waaye koy wax naa ko Mbàkke nee naa ko Sénégal juróom benn waykat laa fi xam ñaar ña gaañu lañ ñeent a fi des juróom benn képp nag laa la wax te man loolu laa jàng nag al bi arabi littérature arabe man loolu laa daan jàngale sax mooy jàngale daanaa jàngal ngoone yu ñuy jooy parce que ah loolu laa jàng <laughs> waaye <laughs> dama ci bañ a mosal far tànt bi jaxasoo quoi <laughs> waaye nun bu nu déggoon way waykat yu bari xew yi waaw dëkk bi ni mu bëree way waykat yi fi nekkul ni mu bëree mbër bërekat yi fi nekkul ni mu bëree politicien politicien fi nekkul te ku deful ñett doomu xaalis fu ñu jëm mbaa doomu xaalis ah bëree mbaa doomu xaalis politique mbaa doomu xaalis moo tax ñëpp da wuti politique ba rek ñëwu ci làmb ja suñu borom moom it commencé nag comme fi ngeen jëm du foofu danaa leen dëpp waaw léeg-léeg mun a làmb ji nii wéy léeg-léeg mu ne pecc ma nii léeg-léeg mu ne politique bi nii ci semaine bii rek ñu génn nag laa wax yëpp yàlla laal lépp ndagar walla yet mu ne fa nii coow la topp leen yàlla waaw wal ba ti ko ne làmb ji kuruj am déet barki démb xaw ma démb sax ci assemblée mu ne politique ba kuruj gis nga boo toggee cere bëgg lekk ba suur tibbalal yàlla doon tàmbali wa man aarada an dikri fa inna lahu azizun danka wa naxsuru yawma alqiyamati ama waaw ndaw loolu kon yooyu ngay defar ci moom su ko defee li ma doon wax shaxsiya mu am personnalité loo ko mooy day toppandoo rek toppandoo koo xam ne ki yaa ko raw fan koo xam ne ki yaa ko man te gis nga ko fi fan ku jëm góos boo lëggee góos nga jëm waaw almaru maa man ahab ku fi fan ku jëm góos waaw laaj ko laaj ko Iblis ba mu taxawee yóbbal xiyaam euh, ñu ko faawoon ànd ak moom mm-hmm. sa war a fees del ak ñu faawoon Iblis mm-hmm. te daan ko wuy si mu xëcc mbaxanay gone yooyu mm-hmm. bii def nii kap kap kap mu ngoog mu xëcc ko moom Iblis taal cigarette bi mujj xew waaw ah, bi mujj xew mu taal ko waaw xëcc ko ñaaroon wal ko daan ne camarade مدام ميسي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي موي الخطبة البدراء بطراء بوب ابن عباس دي وخ شيطان هو غاي مي يالا ديف لين ديغون ما ديغلين مو لين ما ngeen bàyyi ko ñëw topp ma man nag lii laa am ma leen di xamal ne nag moo fi kenn wax puuj sunu borom ne ko may ma ma wax ci ma ma wax ci ci meeting bi jox ma kàddu gi waaw seetet daani alam ahad ilaykum ya bani adama la taabudu cheytaan wa ana abuduni ala siratu mustaqim ولقد عدل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون نكوج نك يلا نجل نين جي تيمير ادوخون آه، نو لاي ديف لي ام نين تي تيمير اك يالو تو جبار افلم تكونوا تعقلون باي لن نودي ريبونس بان جي سي ريبونس بي نك دور نكو لو كنا نسمع او نعقل Ma kuna fi asabi sa'i ko ndaw li mbàkke war nañ koo yar ci muraqabatullah muy baye xel yàlla yonent bi nee na ki ko gëna yëm ci ndaw yi moy ndaw lu tayal ndaw lu tayal te du fug lu ñu yar ndaw ñi ci top yalla mom dong engagement yo xamne dana len may la ci hadith جروم نار ني بو ألغي يالا نا لين كيرال يوم لا زل إلا زلو جروم نار ني بكوي بمكوي تود مو تود تي نداو لو خامني نشا في عباده الله نداو لو تيالا تامبلي جامو يالا waye mo xat ko bu len def ni jaamu yalla ndaw mo yor kurus wala kalaw ci ndaw dede dede ya yo sibanu la tashtaghilu an al-huda wa bil ulum loolu la mag ñi wax de yàlla fayal ñu rek fexe ba ndaw ñi exploité juróom juróom bi ngay dund góor-góorlu ndax dee ngi ñëw te bu ñëw doo defati muy benn bi ngay wér góor-góorlu ndax wér dee ngi ñëw muy ñaar bi nga amee jot góor-góorlu ndax lee nga ñàkk jot léegi nga ñàkk jot de ndeysaan ba ñu may hôpital seen ko tëdd mënut a ñëw conférence léegi nga ñàkk jot de bi ngay nekk ndawit góorgóorlu bala ngaa màggat hmm? waaye bi ngay am góorgóorlu bala ngaa ñàkk juróom yi juróom yi koy nangu retraite dañ koy pa waajal de am déet waaye jékki baa nga ci rek mën na laa bett de ñu jàngal ndaw ñi muhaasaba muhaasaba mooy lan laa defagum gis nga xale yi def bac yàlla nañ am xale bu ci nekk yaa ngay xool say not ni mu tolloon nag nangam ak nangam yaa ngay këraw di jàngal ko wut ku la dolli ah boo demee université bu bu examen yi jub nga filmé leen nga am film bu neex genn waaye ngay seen mu nekk fa naan ma ne waaw nekk examen lay waajal ne ci ron garab yi léeg-léeg am ko ñëw yéeg ci kaw garab ga lé loolu lañ ciy daj am de waaw examen bële di ñëw nag lan tazula qadama abdin yowma alqiyama xata yusalaa an arbain yow yowmal xiyaam ku nekk dekket lii njëkke xew ma suñu borom ne hee taxawal nga taxaw gestu doo gis papa doo gis yaay doo gis sëriñ doo gis ilimaan doo gis ustaas doo gis jëkkër bu dee jigéen sunu borom ne la waaw dul laaj nag sa yaay ak sa baay yooyu non non foofu amul identité diw sa dund gi foko ko jeexal sa dund gi ci loko ko jeexal sa ndaw gi ci loko rappal sa alal ji foko dund jele foko dund dugal sa xam-xam lo ci def lolou yalla du yabal kenn mu la koy lajal mom mo koy laj ñi nan ko dama don musique quoi ñi nan ko man ma jëlun champion ñu naan man dama daan théâtre sketch yi déranger nit ñi ci koor gi maa ko daan def quoi waaw ñu ne man ma ma maa doon roi des arènes waaye garaaw combat wax naa ko Mbàkke ma a gars yi bëree buñ ko. garaaw combat diggante ndërin ak malakal moo ci. bu bëy grand combat. doo si nii doo victoire. <laughs> kon do nga fak fi ngay daanu rek lal fa mat la sërif rek lal fa mat la comme doo daan doo am machine waw ci serigne Touba waw serigne Touba waaw dafa am mbeur mo meusa wup lamb yep ñew ci serigne Touba waw bi mu accé ci Cheikhul Khadim te njaareen waw ñu ne ko ki lay siyaar day moy mbeur mi man ci tundu wi serigne Bamba ñew ni ñokket japp ci japp ci loxo bi and ak mom ba ci serigne njaareen yi ne ko noy def ak mbëri ñu fi ñu fi tër ñii waaw keroog neen kooku keroog la tekki ngem maa la ko wax de nooy def ak mbëri ñu tër ki tër mbëri yii kooku loolu mooy grand combat mooy combat du siècle le combat du siècle mooy combat bi waa am malakul mawti waaye nun moroxu jaak paata ñuy bëri rek ñu ne combat du siècle ah sëriñ Touba nee na saytaane ba neex ak bakkan ak dunya ku leen fital sëriñ Tuuba nee na saytaane bànneex ak bakkan ak duniya ku leen fi dal daa leen nga noon yi def ko. Mm, mm, mm, dama ne góor ga xoqal bu kaaw di ko jàngal rek mu ne ma ci dënn rus mbëkk ma ma jaaxaan. laay ndeysaan xam nga. uqal laa ko doon jàngal uqal bu kaaw waxaguma baydu ba mu jeex rek mu ne ma tuy ma jaaxaan mu jóg ne ma yow yow sëriñ bee la defar ma ne ko yaa ma yàq. ginnaaw bi ndaw li waajalee loolu war nañ koo jàngal moom ndaw li nan lay sàmme boppam takk tubéyam ndax force boobu li feeg ndaw ñàkku ko mën naa nekk lu ne waaye ñàkku na wóoru waaw moo tax ndaw dañ koy dimbali ci mu mën a sàmm force am boobu yaa ma'shara shabaab man istataa minkumul baa'a falyatazawwaj ku am loo joxe ndékki takkal xam nga sa papa naa rees añ beeg nga rees ndékki ku am loo mën a joxe ndékki takkal boo xëyee jox ko mun ndékki waaw ngeen bokk xaaraan añu paa bi <laughs> ah, <laughs> loolu kero ba Yuusufa tollee ci euh, fii ndaw lii toll jigéen ñi daf ne ko hëyta lak mu ne ko maasalla innahu rabbi yàlla tere loolu la ko wax keroog ndaw su ne ko yow ndeke seer nga yow branché woo doo dem <laughs> loolu la ko wax doo dem fenn hein mu ne ko innawoo sa jëkkër rab bi mooy sama njaati gi bala jaxew xew ci loolu dañ koy jàngal ndaw waaye dañ ko ci dimbale nag lu bari ci yaay yi nag duñ dimbale seen doom foofu yaay damaa bëgg jabar nga ne ko jabar la waxaat ko ma dégg damaa bëgg jabar foo koy dugal demul liggéey mu dem del sawaat beneen yoon yaay damaa bëgg jabar gis nga góor ak jigéen ku ci wax ba tudd sëy mayel gaaw am na lu mu yëg mm-hmm. ëmma <laughs> yaay dama bëgg jabar man di lim wax bu fekkoon maay sa yaay koo bëgg nga na nogay ma ne ah, man de sama xel woon ci diw nga ne man de nogay laa bëgg yàlla xam ne du ma la delloo ginnaaw takkal laa lay wax parce que xaala boobu nga toll buñ la ci maye ki nga bëgg koo jur mën naa doon wàllu yu mbaa jàmbaar mhm. góor bi mu fi fi mu mooñoo ba bëgg nit ëmma mm. ñu bëggalee ko ko may ko ko ja saasa mën naa jur wàllu maa jàmbaar waaye doo ko fi takke kii nga xam ne yaayam yorut pañe lu suukar baraada damaa mën a teral ah daal dem may ko ndeysaan koo xam ne kii ba ko xoolee du mooyu waaw jigéen joo xam ne ñuul na ñaaw na gàtt na jëbërëy na lex yi na loolu sax ëpp ko <laughs> dañoo yendu kër ñu Abdul Ahad radiyallaahu taalaa anhu ñu toog ba añ di bëgg a jot am ko fu ñëw jigéen ne ko Mbàkke man day damay ñaan lu jëkkër sëriñ ba ne ko toogal fee ba mu àggale ci gan ñi 15 minutes après am góor gu fu ñëw ne ko Mbàkke man dama ñaan jabar sëñ bi ne ndaw si jege si mu ne ko mbàkke seetal ma keneen lay lay ah waa ji daal dafa dafa dafa dafa dafa nobaabalul il n'est pas ndaw dañ koy jàngal nu muy sàmme boppam buñ ci noppee nag jàngal ndaw nu ñuy fonke xam-xam ak boroom xam-xam jàngal ko ndaw mu fonk xam-xam fonk boroom xam-xam ndax àdduna lu fi dul xam-xam du zikr amu fi njëriñ ñaari wi rekk fi nekk a zikr wa ma bu ñu paree ñu tàggat ndaw li ci bëggum réewam ëmma tàggat ndaw ñi ci bëgg seen réew wan leen nu ñuy bëgg seen réew loolu nag sëriñ see koy def ak politiciens yi ñooy fexe ba ndaw ñi bëgg réew mi ndax rajo yeeg télé yi dañuy fexe ba ndaw ñi bëgg bitim réew ñu xëllantoo leen Europe ndaw ñi fi ne am na ñoo xam ne boo ne woon Messi dañuy kontaan mm-hmm. waaw te suñu footballeur yii boo ci tuddee kenn ñu ne ko cam lu tax dañ leen dul wan sunum réew te yàlla nee na ku fi dëkk cim réew neexul fexeel mu neex soo fexee fexe neexul jóg fa toxul kon nag ndaw ñi ñu tàggat leen ci bëgg seen réew te xam ne moom la am ku leen ciy tàggat sëriñ Cheikh politique yi waaye politicien moo fi gis fi nekk nii bu sojee il a franc ah bu ko dégg jamee il a bu xaañoo il a Maroc bu sibburoo il a Turquie waaw ñun ñi fi nekk fii kon wóoluwu leen te réew ñaar buñ leen wóoluwut adduna tukki la fajkat ak jàngalekat fajkat ak jàngalekat te am na ñooñu wóoluwuñ su jàngalekat yi moo tax ñu yóbbu seen doom ci privé yi wóoluwuñ jàngalekat yi neel benn wóoluwuñ fajkat yi moo tax ñu dem ci clinique yi ak bitim réew waaw lu tax wóoluwuñ leen parce que ki nga xam ne yaa ko jox fi mu toog te xam capacité yow doo ko jox soo yaram loolu képp la kat waaye amul mi ci xamul dara day ñëw ne damaa soj mu naan la ñeste dëkku laan mu naan la téenal ngay téen ndekete moom xamul fi soj di nekk mooy erreur médic erreur médicale yi ngeen di dégg looloo koy waral ndax yow xam nga kii yaa ko fal bi nga koy fal danga fekk mu ne ca kaw di di di raax nga ne kaay doon jàngalekat doo ko jox sa doom am de mm-hmm. loolu rek la de waaye bu wóor na jàngalekat da jox ko sa doom mm-hmm. fajkay di noonu dong la nag ngeen baal ma waaye dëgg la <laughs> dëgg la de ñu yar ndaw ñi mbàkke ba seenu làmmiñ du ñaaw al bu'du ani laani wa takfir dañuy yar ndaw ñi ba seen làmmiñ du ñaaw luy làmmiñ du ñaaw duñ xaste duñ saaga duñ fen duñ nettili ah ku ñaawoon làmmiñ wax leen ko ñu def ko ne naaru gànnaar rek naaru gànnaar boo ko waxee lu ñaaw ba doyal na la ak yow loo ci ban yow ni nga ñaawee si biir bu bi nanga ma ke nanga mën la ak yow waaye ndaw ñi loolu lañ la war a tàggat ba seen làmmiñ du ñaaw du doon góor du doon jigéen ndax yonte ba nee na laa anul mu ni ka lii ku wax nit kàddu gu ñaaw rey nga ko waaw te nit léeg lañuy wax la kàddu gu ñaaw penc mi bind ko journaux yi jël ko rey na la bu fekkee tey ni daana ci koñ bi nga ne ko dëmm nga génne nga ko dëkk bi rey nga ko dañ koo suulul rek ah foo yëg ne fa la dem nag nga ñëw fa ay yéen xam ngeen kii sun koñ la la jóge ba mu jeexalee xale ya ay wàjjile Sénégal Mbàkke ah mbokk suñu tënkee mooy ndaw dañuy jàng moom mooy kan jàngal ko former ko defar personnalité am sax siyam defar ruuxam defar physique am defar ay jikkoom teel koo responsabilisé la ca gën a gaaw nag mbàkki mooy may ko jabar jabar jabar day nitam nit Mm-hmm. déggoo ni mu tudd jabar ah jàkk barde <laughs> waaw jabar xoolal jabar mooy jàkk barde gis nga fi nag ku fi football te amoo ay supporter hmm. dañ lay dóor de jabar nag mooy supporter boo xëyee di liggéey mu ne la najaa yaa ngi xëy def la lii fudd na si demal te ñëw ak jàmm waaw nga sawara boo ñëwee fekk ko fi bu mel ni na koy boo ñëwee ne ko accident mu ne la ancien directeur bu soof bi nga ne ko ma nga fay soof rek sa tension bi commencé wàcc <coughs> ancien directeur bu soof nga ne ko ma nga fay soof rek tension bi commencé wàcc waaw mu commencé nag di la di la wax baat yu neex yi nga xam ne mooy dindi tàngooru ji góor ak i mer loolu la suñu yaay Xadija waxoon yonent bi kër bu mu ñëwee ne ko damaa jommi ba mu jógee ci ma iqra mu ñëw ne ko damaa jommi suñu yaay Xadija ne ko loo wax ne ko damaa jommi mu ne ko yàlla du la toroxal mukk ndax mosoo fecc ci kóllëre mosoo def lu ñaaw ci te yàlla lu war jëmmi woo de yonent bi dafa rawaat ne ko ah, ma ndekete ko toogal hmm. ay bu fa fekkoon nogay ko aman nag aman na tànk day toog rek walla kon wax ji insaaniya bi nekk ci yonent bi la bëggoon mu nekk ci ñun sunu ruux nite sunu yaram nite sunuy xalaat nite ñu lay tàmm ñun ñépp mën a xeex sunu noon bi ñu tuddee bakkan ak bànneex ak duniyaa tege ci kaw ndaw yi mbokk yi bu ñu leen tàggatee lu mel nii ñoom ñooy kennu yey yenu société bi ñoom ñoo ko yenu lu lu société bëgg rek ndaw ñi mën koo def te bu boobaa danañ mën a am génération boo xam ne ci ndaw ñi dutuñu mas am dutuñu ko mas am benn yoon waaye nag nañ ko laaj lislaam mu wax lu ko saxsiya islaam yi boo xam ne mujtama bi maanaam pénc mi danañ ko mën a jariñoo mu di leen jariñ fu mu fekk jigéen ju jigéene mu mën ko jàppale ba lam nekk junju naa ko démb kere ba muusa demee Madiana fekk fa xale yu jigéen ya ñuy root dafa xam ne lii ñuy def du liggéeyu jigéen mu jaaxal ko mu ne yéen lu ngeen xewle xale jigéen ne ko ah sunu bàyyee màggat te amul jëkkër mu yëngal boobu ni wax ngeen dëgg nag fasaxaa lahuma fasaxaa lahuma mooy moo wëggal leen xar ak lépp su mata walla ila zilli bàyyi leen fa dem toog ca kër mbokk yi kon suñu tàggatee ndaw ñi bañ mel nii daañ mën a tege ci système bi yonent bi doon jàngale mën koo dund dund ko seeni mbokk tege ci yoon jàmm ne ñooy ñun ñëpp nu am jàmm yàlla nañu am jàmm ngeen am jàmm yàlla nañu am jàmm ngeen am jàmm balaa ñuy dem di julli ji nu conclure ci li nu yëkkati woon li nu yëkkati woon mooy fexe waxtaane lislaam ak ndaw ñi wala ndaw ñi ak lislaam wala lislaam akub ndawe juñu naa ci wax ji force yi nga xam ne moom la ndaw di am ci buñ ko teelee euh, responsabiliser su boobaa du doon roykat boobu lu mu gis roy ko waaye doon kallun ala mawla yooyu dina xàmmee ba force yi nga xam ne moom la ñuy defar ci moom li koy sàmm mu mën caa tege te bu ca tegee keneen du ko ca teggi lu ko mooy ni addunay doxee da ngay defee ne ku ci bokkut bokkoo te boo ca xasee bokk ñaare mucc da lay daal di jafe kon ndaw lu góor ak lu jigéen wala kullin darajatun mimma amilu na ndaw xam fi mu tege ñu teg ko fa teg ko ci yoon mu dem te ku nu yar ku ne lañ la yar danga koy mokkal te man ko muus rek la kenn mënta yar ba génnee jikkoom ci moom loo ko yar yar yar lum tey tey tey bu siina jënax de ko acc moom muus yeneen ji de seet ku ci ne mën nañ laa yar ba nga ne noj nit nag moo ci raw nit na ku ko bëgg a yaa ngi tàmbalee ci bañ koy tànnal yaayam bàyyi moom sax daanaka dees na ko tànn waaye jërta tànn waaye yaay moom mbàkke moom nañ ko tànn ñu tànn yaay ju yaay ju jonge hmm? te ñeme njaboot yonent bi ko wax ni te zawwajul wadud al walud hmm. takk leen jigéen ju jonge te ñemee njaboot jigéen ju jóge mooy jigéen joj dafa woyaf maanaam rëy rëy lu wëg du jaay jom jëkkër ja daa woyaf te ku takk ku jonge sawar ci joxe ak ay te ko sawar ci joxe ak ay bari njaboot te lislaam ba suñu fi ne jigéen ñépp ku ci nekk minimum nga am onze gos hmm? minimum nga am onze gos wala bok maximum nga am 13 gos tubaab bi nak bu sañoon 2 gos nga yam waaw tubaab bu sañoon 2 gos nga yam mo la léegi yam na fi planifier tubaab bi waye ki yar da wara a bëri ñun fi ne suñu réew mi tubaab bi nu dugal ci plan rek waaye ñun teel na ci ñun xaw ma treize millions lañ xaw ma quatorze millions ah waaye fii ne bu ñu fekkoon ñu nekk ci vingt cinq millions kon yëpp dox gis nga chinois ñi fi indi mbirum planique di ko wërale ci dëkk yi danoo àgg ba Chine ne leen comme fii daa am xiif planifier leen chinois yi ne bu nit ñi baree rek xiif jóg fi ku ko wedd rek amal ñeenti taaw yu bokkul ndey te nga takk seeni yaay ku ko weddi rek léegi chinois ya lànk na ñoom duñ planifier di jur ba jur fu dara nekkul léegi ñoo yàkkal àdduna si ay doom fi kulli xaara min al xaaraati al alamiya chinois fépp daa ni sax da ngaa xam Dakar doo nga lañ nekk nekkuñ Dakar doo nga ne fépp ndax bu bu njaboot baree rek pexe dugg ëmm jigéen ju am lu ëpp juróomi doom yàlla fay la ci sa biiri doom ku wërsëgam ëpp wërsëgu bàyyam loolu moom sama baat ca kaw ni poto jigéen ju am lu ëpp juróomi doom sunu borom fay la doom ju la ëpp wërsëg ëpp ko bàyyam maa la ko de waaye un gosse deux gosses mu yem fa kii picso ah ku jigéen kii taf-taf wala naf-naf wala naf nafar taarixum lan bu kenn kër da yóbbu ka ca des yooyu yooyu baaxul te ku bëgg a yar ku bëgg yar da ngay ñemee nampal moo tax bu yonent bi ne nga takk ku joŋee te ñeme njaboot ku ñeme njaboot day ñemee nampal xam nga fi ne foo xool ci dëkk bi rek ñu ne neef nañ ci wax wax leen ci waay nag jaasir lañ waroon a wax jaasir mooy jigéen ñuy sëy te am doom loolu lañ war a wax waaye nef du feebar ëmm neef neef du feebar de yonent bi de mësu koo fajal Fatima doomam jël te am na doom mu tudd Xasan ñaar doom ji tudd Xuseynu mooy Assane mu ndaw ndax daanaka at lañ magantee Assane a ngi nii Ousseynou ngi nii. Mm. Assane mu mag ak mu ndaw ndax at lañ magantee. troisième doom ñëw Mohsin ñetti doom ci ñetti at boo ko waxee fi ñu la ëw léegi boo amee benn doom rek parce que tubaab bi ñëw eh, ci tubaab bi mu tax xale yi foog nu bàyyi xëy loolu dañu dañuy dañu occuper seen temps boo dee gone gu jigéen bi nga amee juróom benn at dañuy dugal école ngay jàng ba am 35 ans door na am liggéey walla sax stage daal def nag demande de jëkkër boo amee sens am jëkkër sa doom ji njëkk dañ lay opeere sage-femme bi tiim la ne la planning ci métier bi nga ne ko ah, ah. mu dóor la ko boo amee chance man nga amaat benn boo am chance fa ngay doxe waxuma fa ngay doxe sax doo am ci doom waaye fa ngay doxe sax ibaadaat sa jaamu yàlla mu perturbé lépp loolu nag xel a koy def ci nit dama laa bëgg def loo nangam nga ne pour lan loolu ma waxaat ko yonent bi nee bu ñaar baaxee xeet yu baax sin faani min ummati isaa salahu salaha naasu wa isaa fasado fasada naasu politiciens yi baaxee réew mi baax lu sëriñ si baaxee réew mi baax yàlla na ñépp ànd baax yàlla na sunu borom def suñu njàng mi nun ñépp mu am impact wuy def ci noonu sunu mag ñu ni suñu ginnaaw di Sidi Xaali eh, dem na léegi de kon boog noo ngi koy jox nuyoo teg ko ci loxol Alpha mu joxal na ko ko ne hmm. sëñ Alpha Sow imaam Euh, yàlla mi am jàmm yàlla nu boole jàmmal soqalil ñu nag sunu sunu sunu Sud FM gii mu soqalil nu ko euh, bisu sunu mbokk mii di Ahmed Saloum daaw noo àndoon dem turki waaw suñu tukki bu neexu booba euh, macha allah yàlla nañ fa àndaat bisam boobu yàlla nañ fi fekk ndax suñ Saliou de moo ne ma woon doomi soxna buñ ko fi nuy tudd alxuraan wàcc na loolu la ma waxoon de. ñu mhm. présenté ba nako ki ma maa sal moy fi dal qur'an ci rek neysan mu xolat mu ko kontaan daal ne soog waaw mu dal di def ni rek xam nga ñom ni lañuy def rek yenn way joge fele ak mu muri mu déy ko rek ma gis waa dugg ci biir indi ay tak waaw ama ay takale la indi de dóor mako ma denj ko bam jek nak ne ko serigne bi dama la nam rek mune ni gala ga ga ndeysaan jenn waaye fa rek lam poche bi rek genn ci tak ne ko mako def ci muñu serigne bi ma ne fi ak sa fer baax kon nak ahmed saloum ko ñu tuddu tuddu eh, alquran tubaarkàlla maa ngi fi wuutu nag sama mbokk sas Iran xam ne ak guñ bu fekkee jul nañ te agsi wuñ nu yewi ko nekkaloon ko fii mu nekkal nu foofa mu nekk subhaanahu wa taala yal ko yàlla defal dellu ak jàmm mu àgg ak jàmm yàlla may ñu itam ñu fekkewaat ko ay atiyaat di gërëm képp koo xam ne rek yàlla dogal na rot ci tànt bi muy jigéen muy góor ci turu képp ku nekk rajo bi si sunu turu waajur suñu papa Alxaaji Daaxa Kanté mooy bàyyi rajo bi ñu ngi gërëm teew ak képp ku nekk ci sa kër te yàlla dogal munoo teew ñu ngi lay gërëm ci turu suñu waajur woowule ndax moo ëmb rajo bi di ñaanal oustaz Alioune Sall yàlla ko yàlla defal subul salaam mu dellu ak jàmm yàlla may ñu fekk ak waay ati at wa ma zalika allah bi aziz kon nag ñu jox ñu jox ko mu def ñaan rek incha allah امين امين يا رب العالمين ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتمن الابرار امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا واقض حاجنا وارحم موتانا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بسرنا فتحنا لك فتحا مبينا امين وبسر إذا جاء صلى الله والفتح إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن بكل أمن سلام هي أتى من الفجر سلام هي أتى الفجر سلام هي أتى الفجر وبسر الإله في قريش الإله في الشتاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمن من خوف أطعمه من جوع وآمن من خوف أطعمه من جوع وآمن من خوف اللهم يا ميسر يسر ولا تعسر وتمم علينا كل عمل عسير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم تقبل صيامنا وتقبل خيامنا وتقبل نفقاتنا كلها إنك على كل شيء قدير